Hallelujah. on ne peut pas tuer une idée maanaam ab xalaat kenn mënu koo rey waaye ab xalaat buñ ko mënta rey itam man ngaa am ab wax ko ba noppi nit ñi duñu ko rafetlu kon man samay kàddu def ciy gàtt lool sant yàlla daal moom lay def ndax lii ñu def li ci jublu dara lu may génération bii di ndaw yi ñu xamal leen ni leen am na mag ñu fi nekkoon doon liggéeyal borom daarul mooti ci dëkkam bii bu ñu leen waxee li ñu fi nekke woon ñoom xale yooyee ñu jéem cee roy kon kàddu yooyu dong moom laa ci doon yëkkati man xalaat bi laa am waaye lii daarul muuti ñoo ko defal Serigne Saliou Diop ñoo ko defal maire ma Diagne ñoo ko defal maire Khady Ndiaye kon dañ leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal ñoom itam sunu borom may leen fan wu gudd ak wér gi yaram di sant itam seen mbokk yi nga xamante ni ñii ngi bàyyikoo Ndakaaru san fu nekk ñu bàyyi koo fa ngir woote bi ñu woote wuy sunu may sant Cheikh Diop moom soxna say Diop moom Baye Mat Diop ji ndax chaise yi fi nekk yëpp moo ko joxe sonorisation bi itam moo ko joxe te laaju ci dara bokk yi nga xamante ni kenn ku ci nekk dugal nga ci sa loxo itam bu nu ko jot gi mayee incha allah bi ñoom ñëpp danañu leen tudd kon maa ngi leen di sant di leen gërëm Baye Samb léegi nag dañoo bëggoon euh, ñetti fami yi kenn ku ci nekk. am na kuy jël kàddu ci yow ñu may ko cinq minutes rek bala ñoo noddu mu indi cantu maire Khady Ndiaye Serigne Saliou Diop ak soxna Khady buñ noppee Serigne Cheikh Assou Faye mi nga xamante ni li ñu wax ni histoire day répété wu Serigne Modou Habib ba ñu amagul indépendance moo ni jigéen ñi Darou Mouhty war na noo jël kenn ci doomi Darou Mouhty yi jàngal ko ba ku ñu tollooti ab diggante ñu taxawu la sëñ Modou Habib moo jël soxna ma Diagne joxe ko ñu yóbbu ko Kébémer formé ko kon tey bu sëriñ Cheikh Assou Faye teewee wala delloo njukkal soxna Marema Diagne li ñu wax nii l'histoire se répète loolu la Baye Samb kon nanu njëkkante ak kàddu yi maa ngi leen di jéglu nag bu baax a baax jërë ngeen jëf. sëriñ Mbaye di sant bu baax sëriñ Cheikh Assou Faye mi nga xamante ni mooy bopp bis bi. waaye di sant bu baax monsieur le maire nga xamante ni mooy le premier magistrat de la ville de Darou Mousty nga xamante ni moom it ci jagle yi la waaye ñi ngi sant bonne volonté yi nga xamante ni ñoom ñëpp ak kilifa yi nga xamante ni ñoo dëkk daar Mousty ca kenn ku nekk dugg seen loxo yaakaar naa ni du jafe lim waaye bu demee ba ca rajo ba yaakaar naa ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk daañu la lim daañu wax li nga xamante ni mooy sab taxawaay waaye di sant bu baax a baax ah, l'initiateur sëriñ Mbaye Guèye Babacar moom mi nga xamante ni moom moo jël ak jotam ak temps ak liggéey ko tut liggéey ko nu Daaru Musti fa tubarakallaahu am xalaat bi ca ja ànd ceeg sëriñ bi ànd ceeg kilifa yi ànd ceeg sous préfet ànd ceeg sëriñ bi kon ñoo ngi koy sant bu baax léegi dañuy jël kàddu gi dañ koy jox le grand sëriñ Saliou Diop di nit koo xamante ni. 1957 la ñëw Daaru Musti àndanteeg docteur gay, docteur docteur yu bari fekk ko fi la nga xamante ni moom la waa dëkk bi soxla woon mu leen koy defal la nga xamante ni la waroon ci wér yaram mu leen koy defal waaye yemul foofu de dafa dafa dafa jël boppam jox waa dëkk bi jël boppam jox ay bokkam waaye jël boppam it jox sëriñ bi kon sëriñ Saaliwu ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi euh, Serigne bas antanan bi nga xam ni moo fi toog toogaayu borom daaru euh, di ci teg euh, Serigne Cheikh Assou Faye bi nga xam ni moom mooy le chef de village moom lañu denk dëkk bi di teg ci loxoom nuyoo ak ziar mu tegal ñu ko ci njabootuk Maam Thierno gépp di ziar aussi euh, Serigne Mbacké mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu Serigne Moustapha May moom aussi di tek nuyoo ak ziar ci loxoom mu tegal ñu ko ci njabootuk Serigne Moustapha May gi yëpp xam naa nag li wax lépp duñ ko mën wax parce que temps bi permettre uñ ko waaye li wax mooy dañuy sant d'abord suñu tonton Mbaye Guèye Sylla bi nga xam ne mo jël initiative bu noble bi initiative bi li tax mu noble mooy li ñu tàmm xam ci Sénégal mooy nit dañuy bàyyi ba mu génn àdduna ñuy faral di ko defal hommage kon tey lii fekkee daf ko initier ci bi nga xam ni suñu waajur wii kat nga xam ni moom rek lañu am di dund mu defal ko ko ci kanamam mu fekkee loolu noonu day sedd suñu xol trop di ko wax ni wax dëgg yàlla initiative bi mu def kontaan nañ ci trop rëy na ci ñun trop trop trop trop trop am na fu muy commencé waaye cant gi amut euh, fu muy yem. di Santo aussi wa daru musi parce que olof njaay dafa wax ni feccum liir su neexee nday jaafa jege ya kon wa daru musi aussi dañ leen di sant trop parce que nag góor gi bi mu fiy ñëw xëy na sax fi waaye bi fi ñëwee kat waa daaru musi accueillir nañ ko à bras ouvert teetal ko tagatal ko musi def na fi 64 ans ba man fi dëkk ba am fi kon loolu noonu aussi tamit waa daaru musi dañ leen ciy jëlloo njukkal bu baax a baax bi beneen bi di wax ni du ma mën a dem te santuma aussi tamit euh, ki ma tuddee muy Serigne Moustapha May parce que nit ndaw bu fekkee da nga dem ci ab dëkk di liggéey dafa am luna ñu naan tuteur ki nga xam ne boo fa demee kat xëy na lay dalal kon May mi nga xam ne moom la ma duppee euh, loolu noonu apporte na ci contribution bu haba haba haba, a baax a baax xam naa fi mu tëdd nii ci bëy ci xam xolam dina ci sedd trop quoi bu ko may xolam sedd na ci trop. du ma mën a dem aussi tamit te santuma ku mel ne Baye Balla Gaye ak euh, soxnaam Sidi Wade yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ci ñoom te xaaral leen àjjana firdawsi ñooñ tamit aussi tamit jàppale nañ góor gi bu baax a baax a baax am na relation yu baax yoo xam ne sëqante nañ ko ak ñoom ba nga xam ne dem na sax ba tuddante ay doom am ci parce que Baye Balla tudde na doom góor gi sama baay sama baay aussi tamit tuddal na doomu Adja Adja Sidi Adja Sidi xam naa li ma waroon a wax lépp xam naa du fi xaj parce que ñi ngi may signaler que ni euh, waxtu wi waxtu wi maanaam mayewu ko waaye di jàngat rek lenn li may jàngat mooy man mi nga xam ni tey góor gi moo ma jur liggéey fi liggéey bu rafet ba tey bañ koy defal hommage bi kon man am na sas boo xam ne sas nañu ko parce que fi laa dem ba ba nga xam ni ba nga xam ne wëlbatiku naa fi di fi jàngale kon aussi tamit man bu ëllëgee su ma bëggee way wii nga xam ne sama waajur way na ko parce que nag suñu jëfu tey mooy suñ jëwu ëllëg man aussi tamit am na sas boo xam ne sas nañ ma ko war naa ci dox ba ëllëg ma am lu lu mel nii kon daal fi may tëjee comme que kàddu gi li ñu waroon wax lépp xaju ci ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di wax alhamdulilahi rabil alamin di dellu di di wax alhamdulilahi

kon ñu ngi gërëm ñëpp ci loolu beneen bi ci topp kaddu yi ñu fiy jël kaddu kilifteef lu tax mu nekk kaddu kilifteef mooy dañuy wax ci turu El Hadj Abod Ba bi nekk xalifa Marema Diagne di ko wax ci turu ay rakam ak ay mbokkam mooy njaañeen gi yëpp ak ay am di njàmbam kaddu yu ñuy Abod Ba di wax fii dañuy jé commencé rek ci sëñ Moustapha may jeexalee mooy lépp sant la kaddu sant la ak kaddu ngërëm El Hadj Abod Ba mu lay xamal yow Mbaye Gueye nee na lii porté bi mu am ak rëy gi mu am ci ñoom famille Njaañeen kenn xamul fu mu toll mu ngi lay gërëm di la sant di gërëm képp koo xam ne nii xelam màcc na pour mu def initiative bi beneen bi ci topp mooy portée éducative bi nga xam ne Mbaye Gueye wax na ko sànq. ne réew buy dox gox buy dox dafa laaj repère te yaakaar naa ne ñi ñu fi sargal tey di samay kilifa man mii di samay goro mérité nañ ko te sargal bi am na porté di la wax Mbaye Gueye El Hadj Abod Ba di sa xarit di sa doomu ndey nee na képp sumboon lii moom kontaan na njabootu Njaajeen yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant fi may daanelee mooy dama ko yàgg wax ne toolu borom daaru ku ci bay yàlla fekk si la ku bayal borom daaru ci musti ci njabootam yàlla jox la ko man mii xam naa ci dara rëccuwuma kay jaay caaf ca marché ba sax yàgg naa ko wax bu dee caaf la muy jaay daf ko jaay ngir dimbali njabootu borom daaru borom daaru fekk ko foofu ba mu étage ci caaf maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama baay bi toog bu seen Cheikh Assou Faye di ko ñaanal gudd fan ak wér ñi ñu fiy sargal ko fi def tamit yàlla may leen seen bés may leen gudd fan wér ñun ñii nekk ci yoon bi tam di waaj a yàlla nañ fi am bés mel ni si Daaru Muxti maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam maa moom eh, njabootu alaaji Makumba Njaay la moom fii la ñëw te sama mag ji moo tax mu samp ko fi dëkku fi mais dëkkal na ko fi te sëriñ bi moo ko fi jàppoon ba bu du dem fenn fi mu nekk nii suñu waajur yëpp fii lañ leen denc donc ñun daaru musi lañ bokk li ngeen ko defal nii rëy trop ci man aw ma pay maa ngi ñaan yàlla lépp lo xamne lu bax la ci daru musi yalla na ko yàlla yokk yokkaat ko ba mo xamne wa daru musi dañ yëpp daañu mais kontaan ci yéen ci sama mag gi di ngeen ko defal sama xol sedd na ci wa daru musi yeb ma ngi len di gërëm di len sant a'udhu billahi minash seytaani rajim déglu leen seen bi bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad xaatimu nabiyin imaamul mursalin rasoolu rabbal alamin maa ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm mbay def nga sas bu baax lii nag la xel di jariñ ak xam-xam waaw mënoon nañoo yemoon ca vingt donneurs yi rek ci lañu ñu daan yem waaye lii ngi indi tey lu bees la indi nga lu rafet lu siggal dëkk bi lu siggal ñi fi nekk ñépp dolli itam liggéeykat yi di gën a góorgóorlu def nga ko waaye nag loolu ñi xamut lay bett ndax keroog ba gouverneur ñëwee ne dañuy seet diggu Daaru Musti fu mu toll ak Bawal sa maam la sëñ Ibra Faati Fap ak sëñ Aliou Ñang ak sëñ Paate Sall ak sëñ Matar Samba ak Mor Jëbu ne ko ànd leen gouverneur commandant bi ngeen seet fu diggu Daaru Musti jëm ñu dox fu ñu toll ñu ne fii du ci ñu ne fii la fekk na ba ñuy dem sëriñ bi dana sa maam Massayer Sill na ngeen warmaal nag sëñ moor Diarra ci seen digganteek Mesere waaw loolu la ko wax moo tax guy googe ci la ñu ko jaarale mu dem <coughs> kon nag lii boo ko defee du doon mbetteel ci nit ñi nun ñëpp na nga ko defal yoonu murit wépp nga ko defal waa Daaru Musti gépp nga ko defal ndax nun ñëpp sumu xel waroon naa ëpp lii kon nag li ñuy jëkk a sant ñi ngi sant docteur gay ak Seynou Diop soxnaam yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko ndax docteur Gaye moo indi Saliou fii moo ko fi indi yor ko Saliou xamante nan bu baax wax ji dafa bari rek waaye Saliou maa yëkkati ci loxoom teg ci loxol sëñ Moustapha May ndax ba may xam Saliou booba sëñ Moustapha May xam ko ndax noo bokkoon benn bangu école bu nu toog 1944 ca Louga waaw kon muy sama wëlëre ay bokkam di samay wëlëre ñoom ñëpp di samay xarit ñoom di Adeeg taalaak ñoom ñëpp nuy benn ba Saliou ñëw fi bi mu ñëwee it yàlla dimbale ko mu mel ni mu war a mel jàpp Serigne Moustapha ak fukki loxoom jàpp liggéeyam ak fukki loxoom amul laabiir am ngor te doylu kon mënuñu koo fay bëgg yi dëkk bi lool ba tax mu dëkk fi mënoon naa dem Louga kët ndax boo demee Louga baayam jenni la fa am doom yi mu jur yëpp kenn ku ne am nga sa kër bopp sa pàkku bopp te seen bàyyi ko liggéeyoon kon nag bëgg bëgg daaru moom laa ko yàlla fay lii tey ñi ngi sant itam euh, ñi nga xam ne mooy xaddi njaay ak ma Diagne daawuñu am guddi daawuñu am bëccëg te def nañ ko nangami at yoo xam ne amuñu saleer kenn du leen fay dara ab tàggub xar lañ leen di jox bu su ngénte la ak ñaari téeméer ñenn ñi di ko bañ ne duñu duñ joxe dara te yee nañ leen guddi yee nañ leen bëccëg xaaju guddi digg bëccëg heure bu ne yee nañ leen ko waaye ñu amul laabiir ak xam ne dëkk bi la ñuy liggéeyal Marème xam ne ci dëkk bi la dëkk ci doomi dëkk bi la dëkk Mamour Fari ci ñaadoon ak sëñ Ibra Fatil la bokk ñëw fii mu ñu ñu tudde ko soxna Marème Balla Ndeye sëñ Mor yi doon sëñ Abdou Khoudoos kooku moom boppam la doon liggéeyal Khady Ndiaye dikk tëdd ner mel ne Baye Fall mënoo xam lu mu doon mel ne Baye ku dikk mu kaf ak yow reeg yow tàpp la paso dimbale la jàppale la bala nga bëgg nga monsieur su gis mukk Khady Ndiaye mu mer Khady Ndiaye matron ba fa nekk daa mer kenn musu koo gis wala ba ma demee dafa maa jànni kenn musu koo gis wala ba ma demee toppatoo wu ma kenn musu koo gis kon nag amee nañ leen gërëm ñu ngi leen di sant bu baax te xam ne CESP bii nag lu baax la yéene nañ leen ko lool yàlla na leen yàlla dimbale nag guddal seenu fan jéggal leen seen bàkkaar yëpp yàlla musal leen ci salaba liimaan yàlla musal leen ci mbugaluk bàmmeel yàlla musal leen ci saytaane ak àdduna ak bànneex loolu rek moo leen dese ndax nit ki bu demee ba dund juróom-ñaar fukki at jeexal na wetug yàlla rek la jëm yàlla mi nga xam ne nag mooy dimbale yàlla na leen dimbale te yàlla na leen sëñ Ibra Faati taxaw ba li ngeen bëgg ngeen am ko yàlla na leen sëriñ Moustapha may taxaw ba li ngeen bëgg ngeen ko ñi ngi sant it mbooloo mi fi ñëw ñëpp ak ñu def geste bi yëpp mm. Daaru Musi lañ ko defal dafa luñ ko Mbay Géy mm. dafa luñ ko Saliou Diop dafa luñ ko Marema Diagne dafa luñ ko Khady Ndiaye mm. waa dëkk bépp lañ ko defal te it mbay bëgguma mu yom fii jeneen i fonctionnaire a ngi fi yu retraité dama bëgg ñu boole leen ci te nga gën koo yaatal kilifa yi jot ci lii bu ci kilifa yi jotoon xam ne nii lay demee du demee nii dañu ko ëpp fop kon nag danoo ses baa ngoog yoon waa ngoog yàlla na la yàlla àggale wasalaamualeykum wa rahmatullah yéen ñëpp tàllal leen soxla waxte ne amin auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina أنعمت عليهم خير المخلوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أصابنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Ceerno